maanaam di kenn. nijaay. waaw. waaw ah, bàyyi Abdou Aziz joxe. ah as. ayca maa ngi lay déglu eh, ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam di gërëm suñu sëriñ Seydil Xaaji Malick di gërëm suma ñaari waajur maa ngi ñëw fii nag ci sama ndigalu waajur alaaji Ala Ndiaye ak famille alaaji Ala ñu booloo ñun suñu ay frère ak suñu ay sœur indi suñu contribution ci liggéeyu Seydil Hadji Malick bi nga xam ne ñun jàpp nañ ñun ñoo ko war a def moo tax indi nañ suñu contribution mi ngi nii mu nekk à hauteur cent cinquante millions indi nañ ko pour jàpp ko ci liggéeyu Seydil Hadji Malick chèque yaa ngi nii pour la famille des Alé Ndiaye deux cent la ñu ngi noonu jébbal leen ko pour ngeen joxe ko ci liggéeyu Seydil Hadji Malick wasalaamaaleykum wa rahmatullah ah Abdou Aziz ah deux cent mille deux cent cinquante millions yi nga joxe joxal joxal nu ko waa banque bi te mbokk yi ma seedeel leen ci moom Abdou Aziz Aly Ndiaye production télévision yi ngeen gis yëpp biñ ci àggee ba war koo fay moo ne maa koy fay ba pare ànd ak ñun ci liggéey bi ba nu dooree ba nga ni bàyyiwuñu télévision yëpp Aziz Aly Ndiaye moo ko fay indi ci deux cent cinquante millions teg ko ci. bi ci des nag maa ngi jotal yóbbante Alaaji Momar Ndiaye sama goro. nee na engagé wu na pour joxe 10 jox na ma 2 millions li ci des nee na dina ko complété incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Mamar Ndiaye Mamar Ndiaye joxe na 10 millions engagé na joxe na 2 dina engagé ci 10 millions. Makhtar Ndiaye bu Al Amin borom Malikia nee na joxe na 50 millions. Bakary Samb ak fami góor gi Cheikh Samb ca ca Mbour joxe nañu 1 million. Daayira Xayri wal Minati joxe nañ 2 responsable bi Adja Koño Diop. Ndumbe Diop teg na ci un million muy trois millions ci seen ci seen euh, mbokk yi defe naa ni waaw. waaw. bala ngay dem sëñ Mansour mi toog di rakku sëriñ bi moom ak soxnaam ñoo joxe cinq cent mille bu subaa dina ko indi. mosu moog soxna umu xayri ak xale yëpp ñoo ko joxe. salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. di banque ana banque bi na banque bi ñëw yëfi yëfi sëñ bi banque rek la xaj. waaw Maxtaar dafa dogal ñu bokk Tiwaawan suñu àddina yëpp Tiwaawan gënal ñu ko suñu daje bu mujj xalife bi moom ma sasoo ne man xalife bi Serigne Babacar Sy Mansour maa ngi tànn ki may njëkk a joxal may Makhtar Ndiaye Al diggante bu gàtt ndax euh, du woon lu ñu pare moo tax barki démb yóbbul nañ ko cinquante millions doon wax it nag du ñu yem si cinquante millions ndax loolu ñu sas moom laay sas it ñëpp ñu joxe dinañ ci tegaat yeneen deux cent cinquante millions muy trois cent millions. trois cent millions kooku mooy sama engagement. di ñaan yàlla it télévision bu bees bi nga xam ni moom laa tijjil xadara bi di Malikia TV ngeen bokk ko ñaanal yàlla yéen ñëpp. nu Seydi Hadji Malick jógee ci kaw Malikia TV jógee noonu ci kaw asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jëpp ña jërëjëf ci kàddu yooyu nga yëkkati joxe na cinquante millions nee na ne joxe deux cent cinquante millions muy trois cent millions kon euh, Assidou Wal Wafa joxe nañ un million six cent euh, am na El Hadj Dame Diop Mansour xam naa dinañ ko jot léegi ci téléphone yónnee na nee na joxe na cent Alaaji Dame Diop Mansour mbokk yi ñu dellu si ci plateau bi ndax it waxtaan wi neex na Pape Makhtar la doon wax mais Pape Makhtar dama bëgg dama bëgg rek nga may nu tuuti ba lu may ñëw ci professeur Abdou Aziz Kébé am na loo xam ni sëriñ bi santaane na woon ko pour ñu jotal ko ñuy xam ni ay bokk lañu te ñu bokk ñu diine ji te sës ci kër gi mu bëgg leen a tudd quelques minutes rek. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, xalifa bi bi muy def déclaration dafa xatoon. mu santoon rakkam sëriñ Mansour Abdoul Aziz ne ko am na ñoo xam ne ci lañu ñu bokk te ñu leen bu ñu ñëwaat ci bu ñëwee ci palaato bi nañu leen àggale ñi ngi jégalu bi ñuy tudd imam yi nga xam ne ñoo nekkoon ci grande mosquée bi fa tabarakallahu di fa jiite imam Mouhamadul Mansour Ndiaye mu baax mi ngeen xam ci la bokk te génn àdduna yàlla ko yàlla xale xaare aljanna sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal al imaamu ratib Moussa Samb bi nga xam ne mooy imaamu grande mosquée bu Dakar mi ngi koy yëgal alxaaji Rawxaan Mbay mu baax mi nga xam ne liggéey bii ci la bokk di ko ñaanal yàlla yàlla may ko wér di ko yëgal imaamu zaawiya moom cheikh alxaaji Malik radiallahu anhu bi nekk Dakar di alxaaji Ousmane Diop mi ngi koy yëgal grand sëriñ de Dakar alxaaji Abdoulahi Makhtar Diop grand sëriñ Papa Ibrahima Diagne ak mboolem dignitaires yi lébu yi penc ci yépp danaa ci ñëw incha allah ñoom ñëpp ñu ngi leen koy yëgal fa tabarakallahu ndax suñu mbokk lébu yi la waa lansaar defaloon sallallahu alayhi wa sallam ba mu bàyyi ko makka ñoom ñoo ko teeru dalal ko lébu yi fii ci biir ndakaaru ak li ko wër ñoo dalal maam Cheikh Alxaaji Malik ak njabootam kon lu kër gii def sëriñ bi nee na il faut que ñu jiital leen ci mi ngi koy yëgal penc yëpp fa tabarakallah ñu ngi koy yëgal itam Cheikh Abdul Munim Zayn bi nga xam ne moo jiite aljaaliya lubnaniya bi nekk fii ci dakaar moo doomu góor gi ñu koy wax Mouhamad Badou Sy daairatul kiram ak mboolem fédération yi ci topp yépp ci njiital Mouhamadul Mansour Diagne daairatul ahmadiya mboolem daaira yi ci topp yépp alxaaji ahmad Gueye jiite ko koskaas maam Ousmane Samb jiite ko coordination de daaira Tidiane bi nekk Dakar Cheikh Ahmed Tidiane yi Gueye jiite ko mboolem fédération daaira yi nga xam ne ñi nga aju ci sëriñ Mouhamadul Moustapha Sy Jamil te tey taawam bii toog di sëriñ Mouhamadul Mansour sëriñ bi nee na mi ngi leen koy yëgal daairatul mustarshidina wal mustarshidat bu sëriñ Mouhamadul Moustapha Sy bu sëriñ Cheikh Tidiane ñi ngi ko koy yëgal